Mhm. ci lan nga leen di xeex. xam nga tey opposition dafa baax ci réew. effectivement. ñi ñi yore nguur dañu war a liggéeyal askan bi maanaam parce que askan bi daf leen jox seen alal seen doole. Mhm. ne leen ñu liggéeyal leen c'est-à-dire ñoom ñu am lu ñu lekk am lu ñu naan am fu ñu tëdd am ay infrastructure par exemple des moyens de déplacement wala boog ay jubtukaay. est-ce comprendre nga. Mhm. donc li ci war yëpp xam nga ko. xam leen mhm. ko. Mhm. comprendre nga boo xoolee rek à travers un gouvernement les ministères. wàllu ñi yëngatu ci wàllu mbay mi. soxla leen ku leen accompagner ku leen jàppale. waa élevage. waa euh, nit ñi soxla leen courant soxla leen ndox. effectivement xam nga soxla leen ay tali. et cetera et cetera donc kon lépp lu Sénégal am ci ressource. ñoom dafa am ñu ñu koy dénk. yéen seen nguur ba ngeen fi nekkee loolu yëpp yéen ngi ci daan prêter attention. mais bien entendu def nañ li ñu mën le président Macky Sall xam nga ne effectivement le président Wade a beaucoup fait. Mhm. si Wade defe naa sax ci la Sénégal gis ne Sénégal war na mën a rivaliser avec les pays en voie de développement. Mhm. wala les pays émergents. nañ waxante dëgg man militant parti socialiste mais le parti en 40 ans. Mhm. vraiment desoon na c'est vrai que. ils ont fondé un État euh, avec la sécurité du pays et cetera loolu dëgëral leen les institutions bancaires yeeg yooyu. Mhm. mais loolu rek du État. Mhm. État dafa war a aspirer à un développement à l'émergence. Mhm. est-ce qu'on comprend parce que Sénégal 1960 dafa tolloo woon ak dëkk yu bari ay ay ay par exemple ay Corée yi xam nga ak ay euh, maa ngi fàtte yeneen tur yu bari. mais Sénégal moo tolloo woon ak ñoom ci lan. ci euh, seuil de développement. ci Corée. ci ak Corée. waaye. xam mm-hmm. comprendre nga dëkk yu bari le président Sénégal dafa tolloon ak ñoom. Mm-hmm. mais tey xoolal Corée fi mu toll. Corée c'est une puissance. lan moo leen ko may. lan moo leen ko may liggéey. lan moo tax ak ay dirigeants lan moo tax pendant président ba mu ñëwee nekkul ci voie boobu noonu le président de la république Macky Sall puisque nee nga Ablaye Wade am na liggéey boo xamante ne liggéeyoon na ko ba ñëpp teg ci seen bët ba nga méngale ko léegi ak Corée lan moo tax continuité boobu noonu amul yoo xam nga ne Sénégalais yëpp xam nañ ne Macky Sall le président Macky Sall bi mu nekkee ci wetu Ablaye Wade ci la projet Ablaye Wade yu bëri feeñ bu ñu waxante dëkk yaa ngi dégg mm-hmm. alors mais président Macky aussi bi mu jëwee ku waxal yàlla rek xam ne def na def na léegi nag man tey euh, euh, nguur gu bees gi lan la ñuy xaar ci ñoom mooy ñoom ñoo waxoon suñ ñëwee dinañ wàññi dund gi. Mm-hmm. Sénégal ceeb li mu fiy jar bari na te waruñ dem di jéggaani ceeb dañ ko war di ko bay fii. Mm-hmm. autosuffisance mm-hmm. alimentaire muy ceeb. muy lu mu mënti doon lu ñuy lekk. daf dañ ko wara di ko bay fii et c'est possible. c'est possible mais ñoom defaguñ fi un mois le 24 lañ leen fal. waaw actuellement defaguñu un mois. ñoo ngi nekk ci installation membre de gouvernement bi et autres. Mm-hmm. ñu bàyyi leen may leen tout tuuti temps de grâce boo mm-hmm. xamante ne nii dinañ mën a focus ci loolu noonu. mën ci mën mën ci liggéey. Mm-hmm. de ce fait que yéen su boobaa bu ngeen di opposé wu. Uh-huh. di ngeen xam ci li ngeen di opposé wu ci yan base ngeen koy teg. mais ñëw Sénégal damay opposé pour opposé te gisagoo li ngay opposé loolu tamit su boobaa est-ce que du nekk politique politicien. rien que pour naa exister. non mais mais mais le temps presse ñoom ñoo ne Sénégal tout est urgence. Mm-hmm. te ñoom nee nañ am nañ solution yi. waaw léegi te yow xam nga ne euh, soxna. que ne Bintalaay ah Bintalaay. Mm-hmm. Euh, ceeb li muy jar. Mm-hmm. boo sañoon ñu wàññi ko. effectivement ceeb euh, kilo ñaata deux cent cinquante. kilo kilo jarul deux cent cinquante de yéen ci seen nguur. waaw kilo ceeb bi actuellement mu ngi ci six cent. mu ngi ci six cent réew mi Macky euh, waaw kilo euh, euh, nga ne kilo ceeb mu ngi jar six cent mais saako ceeb vingt cinq mille lay jar parfumé bi kilo ceeb parfumé soo wàccee léegi ci boutique bi nga laaj ko dala koy jaay kilo six cent ah, mais vingt cinq mille boo ko divisé par cinquante kay à près yooyu la lay jox chiffre yooyu waa waaw ñi def mathématique nañ ma ko soufflé ma xam ñaata la waaw mm. donc kilo ceeb ay li ma yaakaar non jarul cinq cent wala boog xëy na am na yu jar. xam nga boo toogee fii naan ci li ma yaakaar cela veut dire que yow. li Sénégalais di dund réellement xamuloo ko. wala xam nga ko. kilo ceeb mu ngi ci 600 am kilo boo xamante ne 700 lay jaar ceeb bi nga xamante ne bëri na tànn bëri na xeer soo demee ñu la koy jaay ay 350 400 mooy ceeb bi nga xamante ne mooy kenn bëggul boo ko taajalee xar sax mu daw. waaw effectivement waaw ki euh, la kilo ceeb effectivement mu ngi non 500. pas 600 sunu parce que 50 fois. Euh, euh, cinquante fois cinquante fois cinq cent da lay jox vingt cinq mille. waaw alors donc kilo ceeb bon ci li ma jàpp mooy cinq cent effectivement lay jar alors nee nga nag yokk na. ci sunu nguur mais xam nga ceeb bi tamit am na différence. Mhm. am na sax buy jar. bon parfum bi laay laay wax quoi man parce que man parfum bi laay. Mhm. laa daan jënd. Mhm. ak yooyu donc 500 laa koy jëndee. ak yooyu am na sax ñu koy jaayee mille bi sax mën na na wàññil ba 1000 francs sax 24000 wala 23000. ak yooyu mais am na néew aussi parce que si qualité yi la. Mhm. alors léegi tey kilo ceeb 500 par exemple tey ñoom ñun ñu ngi xaar ci nguur gu bees gi. Mhm. ñu indi ko 250 wala 300 francs au moins parce que buñ ciy wàññi tamit. Mhm. ñu wàññi juróom wala fukki dërëm soxlawuñ loolu. dëwlin tamit mu ngi ci 1500 au moins defe naa. wala boog. si euh, si mu ngi 1500 mu ngi 1500. tey li ñuy xaar mooy mu jar au moins litre bi moins de mille francs mais xaaruñ ñoom ñu wàññi si fukki dërëm wala juróomi dërëm ñoom ñoo doon wax essence. Mhm. essence tamit su fekkee ne euh, essence la xam nga am na gasoil tamit essence it 1000 francs la. Mhm. par am litre bi. Mhm. mais ñoom dañuy wax ne euh, euh, Mali essence bi fii lay jaar di dem Mali et pourtant ñoom ñoo ñu gën a yombale. kon tey essence bi au moins war na wàcc en dessous de. 700 francs voire 600 francs. kon yow su ma la déggee bu baax da ngay jël gouvernement bu fi nekk nga teg leen devant les faits accomplis la ñu waxoon nañ ko jéem a jëfee nañ ko jëfee. ah d' accord. Euh, dama lay dama la ciy tegal. Mm-hmm. président Macky Sall. le 2 mm-hmm. avril 2012 la prêté serment. Mm-hmm. Diomaye Bassirou Diomaye Diakhar le 2 avril 2024 la prêté serment. le président Macky Sall le 20 le 20 avril mu il le prix des denrées de première nécessité ceeb diwlin suukar. et consort. Mhm. ba pare wàññi impôt euh, les fonctionnaires mhm. man xam naa ci dara ndax fonctionnaire la pendant ce temps donc kon ñu wax ne a ñëw te defuñ fi avant mu fi deer def weer la waaj bi ma ni commencé waaj ma ni pendant ce temps waaw boobu ba ñuy ñëw det bi ñaata ngeen ko fekkee woon detu état du Sénégal mhm. xam nga tamit gouvernement boo xamante ne dem na bàyyi fi aw det woo xamante ni toll na ci quinze mille milliards pour qu'on puisse pour cent balaa ngay balaa ngay toog bay redresser li nga xamante ne nii moom moo di det bi ngir jëm ci li nga xamante ne moom moo di wàllum dund gi loolu tamit di ngeen may ñii temps de grâce ñu mën a naan kopp ndox liggéey mais bint mhm. ñoom dañ leen fi bàyyi budget dañ fi fekk budget dégg naa rek ñuy wax ci budget bi da ay estimation la ak yooyu mhm. mais lu mu bon noonu fekk leen fi budget te ñun ba ñuy ñëw Abdoulaye dañ ne euh, ku ma remplacer du fay salaire mhm. donc ban situation lañ fi fekk te boobu budget bi la woon deux ñun sept mille milliards lañ fi bàyyi de budget mhm. alors donc kon ñun am na luñ ñu leen fi bàyyee ñoom am na lu ñu fi fekk ñoom kay ñoo ne woon ñun det euh, bor dafa bari Sénégal li muy leb dafa bari warul lekk Mhm. ñoom gisuñu leen barki démb njaay ñu dàq leen. ci foofu ci foofu sax fa laay ñëw dàquñu ak yow muy sama question boo xamante ni bëgg naa la ci laaj par rapport ak ministre bi nga xamante ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum économie ak plan ak coopération di mm-hmm. Abdourahmane Sarr mm-hmm. ñu daal dem gisante ji ak ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi président de la république moo woon Macky Sall tey gisante boobu noonu lan nga ci njortu ni lan moo waral waral gisante bi ak lu ko sabab. loolu kay ñëpp xam nañ ko. Mhm. ñoom dañu dem. gàddu seen ay bagages. bon euh, euh, Cheikh Diba ministre des finance bu ma déggee dama xaw a ma baal tuuti parce que sama xarit la. Mhm. waaw vraiment sama euh, voilà jàmm rek lañ seq vraiment. Mhm. muy nekk nit ku yiw. parce que vraiment il a été un proche collaborateur. du ministre des finances sortant. mais ministre des finance sortant rek taxul ma xam ko. Mhm. ak yooyu donc moom xam naa ko avant euh, Mamadou Moustapha Ba di nekk ministre des avant Mamadou Moustapha Ba di nekk directeur général du budget. Mhm. donc yàlla boole na ma ak moom ma xamante ak moom. Mhm. Euh, Abdourahmane Sarr nag damay dégg rek ne frère Oulimata saar bi fi nekkoon ministre la xaw ma ndax dëgg la am déet. mais ñoom ñaar ñooñu. ñoo fi gàddu seen ay dëbës dem FMI. ñu dàq leen d'abord jàngat bi nga ciy jàngat mooy ñoom ñoo fi toogoon bi ñu nekkee dans l'opposition di ŋàññ les bailleurs ba pare di wax ne dette bi dafa bari avec la soutenabilité ak yooyu alors que xamuñ ne bor bi dette euh, mën nga euh, euh, wut leb mais nga def ko fi nga ko war a def mhm. États-Unis du nee nañ c'est la première puissance mondiale mais kan moo ko ëpp bor ñun suñu bor mu ngi nekk ci soixante seize pour cent du PIB États-Unis dafa romb cent cinquante pour cent deux cent pour cent donc mën nga leb def ko bu baax comme président Macky Sall li doon def leb indi terre leb indi euh, euh, euh, kii. BRT mhm. lépp def ko ci autoroute péage parce que soxla nañ ko man mii bu may dem Koungheul bëgg naa péage bi Euh, président Macky Sall yóbbu na ko presque ba Kaolack egg na presque. Mhm. bëgg euh, waa Tamba bëgg nañ si jot parce que ba foofu la jëm. Mhm. waa Ndar Ndar j'ai grandi à Saint-Louis. Mhm. waa Ndar péage ba euh, président Macky Sall projet ci la bokk commencé na donc dafa war a yegg. alors léegi ñoom bi ñu leen bi ñu leen bi ñu leen. FMI FMI. bi mu leen ak banque mondiale. bi mu leen kiiyee tourné le dos. ak banque mondiale. loolu tamit am na lu muy signifié. am na loo xam ne du ko wax. léegi ñoom lan lañ mujj def kenn gisanteeg le président Macky parce que xam nañ le le président Macky Sall voilà il a un portefeuille oui donc yàlla moo ko mayoon et puis ak xarañam ak charisme am fii leen tagoon di di diaboliser le président Macky Sall amul luñ ko waxul mais tey le président Macky Sall am xol bu laa biir et puis te man loolu dama ci ànd te président Macky waxoon na ko fi. newoon na bi muy bàyyi mhm. sama dinaa euh, dinaa euh, ndekk diggante Sénégal ak Afrique maanaam comme ni ab Senghor def dem France Abdou Diouf dem France mhm. Abdoulaye dem installé wu fa mhm. bien que ñoo ngi koy nuyu waale bu baax les anciens présidents de la République Léopold Sédar Senghor yàlla ko yàlla xare te aj euh, yéexe ko yàlla na ko yàlla xare ajana ñi fi desit yàlla continuer may leen gudd fan surtout ñu si gën a féete mag Abdou Diouf ak. Abdoulaye Wade bien entendu le président Macky Sall. Mhm. Abdoulaye Wade sax defe naa ba léegi mu ngi Sénégal. actuellement mu ngi Sénégal ngi Sénégal. Mhm. alors donc le président Macky Sall loolu la waxoon ne moom il est entre le Sénégal et l' te waxoon ne aussi successeur am bu ko soxlaa ci ndimbalam ci xam-xamam ci expérience am il est reste ouvert kon jàpp nga ni ministre yi dañaa dem tàllali ji ko ay loxo. ñii leen président Macky Sall jàppale wu luñ duñ def lu leer laa la wax yow yaa ko gën a xam bidd. ñii ñii ñoom kese mënuñu. ban expérience lañ am ban nga teg ni mënuñu. Bassirou Diomaye euh, Diakhar service sax mosu ko jiite Ousmane ko même chose aucune expérience gouvernementale. d'accord am na ñu nekkal ci gouvernement bi ñoo xam ne ku mel na sama ministre de tutelle euh, Moustapha Guirassy. Moustapha Maba Guirassy. Maba Guirassy. Euh, Mary Teuw Niane par exemple euh, ki nekk directeur de cabinet bon ak ñeneen ñu bokk ci coalition bi te peut-être xëy na yoroguñ ay responsabilité gouvernementale wala yooyu mhm. ay ñoom ay Aïda Mbodj ay Mimi mhm. ak yooyu Habib Sy même buñ euh, occupé wul yenn fonction sax am naa yaakaar mhm. que ñoom dina leen di épauler di leen laaj wala di leen xelal